mën mii nga xam ne maa gën a néew sax au moins sax dugal naa si cent franc lu mu bon bon mais ñoom dugaluñ si dërëm ba pare bëgg a taxaw di wax naan ay dugg na fii génn na fii ak lu kenn xamul xam nga ñoom lan lañ bëgg ñu séddale ko ma samba am ma demba am ma paata du am kii du am ne na wala maire def na lii ak lu kenn xamul gis nga nag nànk-nànk mooy jàpp golo si ñaay gis nga mbir mi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg mooy loolu ñun heure bu ñu séddalee nu xam ni séddale nañ ko lékkunu ko naanunu ko te maire dina def de telle sorte ko képp ki nga xam ne da ngay yeewoo biir Malicounda di nga si bénéficié wu moo xam ndax moo xam ndax kilo ceeb ngay bénéficié wu wala genn waa libaru ceeb mais di nga si bénéficié wu ñun suñu politique loolu ñun politique de développement la ñuy la ñuy def mais nekkunu fii di wax nii nii di wax leneen ak lu kenn xamu ak yooyu noonu nga baal xaw ma kan la ñuy wax ay Aliou Sène ak ñu kenn xamul Aliou Sène lan la def fii nii Kër Mambay man ak moom jeune la kon man koñam na dem koñam wóor na Serigne Touba su la neexee nu dem nga dékk fa micro ba su ma mën naa faa génne cent jeunes moom mënu faa génne benn jeune chaque jour man ak ñoom ñooy fer ñooy def fréquentation bi ba si ba si lii bi ASC bi yeneen ak yeneen kon am na leen loo xam ne ñoom suñuy wax fële la ñuy toog seen ruq di wax mais amul lenn loo xam ne du ko fi moom na wax lan la fi defal te moom enseignant la chaque chaque fin percevoir salaire moom moom moom moom xool léegi école su école tijjee du nekk koo xam ne xamul réalité yi nga xam ne ñoo nekk Malicounda yi ne nekkuñu fii nii moom mënu kaa xam te moom xam nga lan demoon na si maire pour tegal ko condition na ko damaa bëgg a ànd ak yow mais su ma ànd ak ni a ak nii ak nii la ñuy doxee maire na ko man man kenn du ma tegal condition man kenn du ñëw naan ma man ngay àndal da nga may jox kër da nga may jox laa da nga may jox li wala du ma ànd a yow looloo kat naqari nag bërki dem moo Ndiaye dégg naa ko mu ne mi ngi si idi démb dégg naa ko mu ne mi ngi si Sonko tey nee na mi ngi si ànd taxawaalu biir Malicounda nu xool nu xool ginnaaw suba fu muy dem xam naa PDS lay mujjee merci